que feebar bi euh, juróom benn weer nii wala lu ko jege mu tëraloon ko France. waaw waaw effectivement parce que moom xam nga problème mu donc euh, genou yi tànk yi moo doon moo moo doon metti mhm. donc affaire bi dem na ba aggravé wu donc il était même sur une chaise roulante. depuis vraiment plus de six mois donc euh, mu wax sax mënatu ko man je l'ai eu au téléphone il a mhm. un peu moins de d'un mois. Mhm. mais man j'ai pas terminé la conversation tellement que Pape Bouba xameetuma ko Mhm. donc euh, voilà feebar bi daal mënoon na ko daal. waaw mënoon na ko quoi. Mhm. Mhm. Euh, na ko ci ban dëkk la la nekkoon ci France. bon je pense que Paris mais il faut me confirmer la ko ak euh, parce que man. c'est mon cousin yaayam ak sama yaay ñoo bokk yaay. waaw mhm. ah, mais Alioune Diop bi nga xam ne nii ñoom ñaar ñoo bokk euh, ndey ak baay Alioune nag moom moo doon un peu son son son son manager quoi. Mhm. waaw bi mu nekkee ci activité dëgg. Mhm. donc Alioune moo ko jëloon en charge donc moo nekkoon ak moom moo koy signer contrat yi ainsi de suite donc xam naa ni ci kanam tuuti. dinaa leen jox euh, coordonnées Alioune ngeen woo ko comme ça moom mën na leen jox de plus en plus information quoi. d'accord voilà d'accord baax na. Mhm. jërëjëf jërëjëf Pathé du ñàkk. merci dinañ diggante ak yow si kanam tuuti. jërëjëf incha allah rabbi jërëjëf jërëjëf. jërëjëf euh, Pape Bouba euh, Diop kon di sénégalais bi njëkk a dugal but si histoire coupe du monde ñëpp a ngi fàttaliku but ba mu dugal ca paas ba nu ko paasoon ca diggante Sénégal ak France doyen Abdoulaye. Mhm. ci taxawaay ba. ci bëgg réew ma ak ci am fulla ak am faydaam muy xabaar bu tiis bu dal ci kaw Sénégal. Mm-hmm. xabaar bu tiis kay. Mm-hmm. bu ñu fekk ci biir studio bi. ci biir studio waaw parce que euh, Pape Bouba xam nañ ko ci équipe nationale bu Sénégal. Mm-hmm. mais avant booba jaraaf d' abord. Euh, mu amoon complicité bu mag tamit ak Henri Camara. ñoom ñaar ay dañu amoon atome crochu. autant o Jaraaf qu'en qu'en équipe nationale. Mhm. ñu jege woon lañu. Mhm. Pape Bouba Diop ak Henri Camara xabaar bi ñu fekk fii léegi nag. Mhm. muy lu tiis. mais nangu rek. nangu rek parce que nag euh, xam nga am vitrine. am vitrine weesuwul euh, bis bu mel ni Sénégal retenir son souffle parce que da nga nekkoon ci vitrine Sénégal. équipe nationale de football du Sénégal dafa di vitrinu Sénégal waaw parce que amul lu gën a mën a fédérer football. Mhm. amul lu gën a mën a boole football. Mhm. amul lu gën a mën a jubale football. compté yi bu ñu la nee euh, euh, Sénégal dem ci coupe du monde de fraîche date. en 2002. Mhm. malal 2002 ak léegi c' est 18 ans. 18 ans c' est à la fois peu et beaucoup. mel na na barewul. mais ci dundu bakkan mhm. bare na 18 ans mhm. ci dundu nation du encore dara parce que ba léegi mën nañ fi waxtaane lu lu lu lu fi jiboon il y cent ans mhm. mais Pape Bouba dafa demee ndaw dafa deme ndaw 38 ans dafa demee trop ndaw te li mu fi def mi ngi nii encore frais ci bët yi ak ci xel yi waaw wax nga ko son but le premier du Sénégal. en mhm. phase finale. de coupe du monde de coupe mhm. dafa di lu nga xam ne nii dafay marquer les esprits. Mhm. dafay marquer postérité bi. Euh, jaraaf dinañ ko jooy mais sénégalais yi ñoo leen di gën a jooyle ce n'est pas que ce but. mais aussi celui marqué contre l'Uruguay on s'en souvient. bi ñu mënee très tôt Uruguay euh, defe naa. 3-0 ci match bu nga xam ne xaw nañ ko perdre les images von se bousculer. Mm -hmm. moi la première fois que je l'ai approché c'était à Praia. Ben Cabral. Mhm. avions joué la finale. Mhm. <coughs> que nous avions perdu contre le Cap-Vert. Mhm. Pape Bouba ma nga ca. maa ngi ci rappelé ak ñoomin Isaba. Isaba waaw. ñoomin Isaba ma ne ko Pape euh, gëmee sa bopp soo sa bopp. di nga def carrière. Mhm. soo gëmee sa bopp parce que am nga euh, kàttan bi. Mhm. pour dem très très loin. Euh, c'est tellement vrai que après dafa dem rapidement ailleurs ba am na ñu jotul am encore des images fraîches du passage de de Pape ba Diop. au Jaraaf voilà. Mhm. mais gis nañu loolu tout à l'heure maa ngi waxtaanee Jaraaf. Euh, ci victoire u démbam bi je disais que le, malheur ne vient jamais seul. jamais seul parce que j'ouvrais par euh, l'entraîneur adjoint Siré Dia bi yaay ji gaañu démb. démb wallaay. Euh, non tey ci suba. tey ci suba la yaayam ñu koy denc léegi bu ñu julee takkusaan. Mhm. Euh, di ko jëlee ca ca di ko jëlee ca marché di ko jëlee ca mosquée bi ci HLM 5 nous avons en ligne. Mhm. Malal le président de la fédération sénégalaise de football. Mhm. maître Augustin Senghor président bonsoir. bonsoir bonsoir. bonsoir monsieur le président léegi xanaa kay di la masawu ci tub ci euh, euh, ki lii ñu dab génnu àddina Pape Bouba Diop. waaw ñëw nag di ci taataan sa kàddu président. bare bare bare. oui xool tamit li euh, euh, mu jot a def pour footballu Sénégal. oui ak euh, ni ñu ko ràññeewoon ci àddina si ak coupe du monde deux mille deux. oui ak génération boobu nga xam ne ñoom ñoo marqué histoire bi. wax nga dëgg wax nga dëgg. tey xanaa askanu Sénégal yëpp ñoo ñàkk tey. Mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla xaaree ko àjjana. amiin amiin di ko jaal mbokk mi. Mm-hmm. mbokki deretam mi comme mbokki. sport mi. oui oui. di wax rek ne yal na ko yàlla xare àjjana. amiin président ñu fexe ñu fexe daal woyam continuer même bu fekkee ne ci jëmma nekkatu fi ak ñun. kon yéen a ngi noonu à Thiès ah. waaw ñu ngi nekk nii à parce que tey la finalu tournoi U20 bi. waaw ah, d' accord kon di la jàll ak sa ñi nga àndal ci fédération bi yëpp. waaw waaw waaw président Augustin Senghor merci euh, euh, Malal. Euh, dama doon parce que bi bi ñu dugalee léegi Augustin. Mhm. maa ngi naan mais c'est vrai c'est Souris qui a fait. 2002 2002 Malick Sy Souris. waaw Malick si Souris. Mhm. defe naa ni comme moo àndoon nag Pape Bouba. Mhm. en 2002 ce serait aussi efficace. de l'appeler waaw ñu jéem am Malick si waaw Malick Sy Souris parce que moom it. ndeysaan maa ngi fàttaliku kàddoom mhm. bi ñu jógee à la coupe du monde 2002 parce que xam nga Souris bu demee euh, euh, bu bokkee ci génération bi gagné la seule médaille d'or mhm. la seule médaille d'or ci ci ci catégorie bu mag bi mhm. jeu de l'amitié 1963 nekk fi président fédération sénégalaise de football mu tombé Sénégal di dem à la coupe du monde ba mi génn àddina tey Pape Bouba Diop mi waaw mi génn àddina tey ba mhm. muy dem ci coupe du monde boobu Malick Soussouris moo doon chef de délégation moo koy yóbbu moo koy yóbbu waaw kon tey jii euh, bu ñu tollee mhm. fii ba dégg ba dégg l'actuel président de la fédération mhm. mu yëkkati kàddu au nom de la fédération dana ci baax aussi ñu taataan euh, kàddu Malick si Souris mi nga xamee ni euh, ñu jël le ministre des sports. jël le ministre des sports qui est en le temps ñu yeggali ba jot ci ni Malick si ñu ngi woote ci ginnaaw. waaw bu ñu leen jotee rek dinañ leen dinañ dugal. waaw ñu dugal ma monsieur le ministre Matar Ba. voilà waaw monsieur le ministre Matar. doyen naka waa va très bien Ba ça va très bien. Euh, hmm. Massa ñuy partagé ki yéen euh, émotion bi ci xabaar bi nga xamee ni daf ñu dab léegi génnu àddina Euh, Pape Bouba Diop de l' équipe du Sénégal de information bi fii la ñu fekk ci biir studio bi. Euh, monsieur le ministre noo nooy dundee instant yi nga xamee ni euh, d' abord dans la grande famille du Jaraaf métit la parce que Jaraaf yi nga woon hier en Coupe d' Afrique ba gagné son match Pape Bouba dafa marqué sa génération 2002 mi ngi nii 18 ans encore mu nekk épopée de de fraîche date. Euh, lan ngay yëg yow mi nga xamante ji yaay personne moralu football bi au Sénégal. waaw dëgg la mais xam nga ay jullit lañu. Euh, fàttali nga suñu gagné démb jaraaf gagné ko. Mhm. mu doon mbégte tey ñu nekk ci naqar. wax nga dëgg Bataar. loolu mooy dundu doomu aadama. day am toujours des moments difficiles. waaye loolu lépp li ñu mën a def mooy. puiser ci suñu ngëm pour mën a faire face. à ces moments de douleur. parce que booba ñëpp ñoo koy fàttaliku. ci détermination am ñu bëri nag bii bi la ñuy wax deux mille deux but boobu contre la France waaye fekk na moom li ko jiitu mooy son patriotisme détermination am ak euh, liggéey bi nga xam def na ko pour siggil réewam kon bu yàlla defee mu genn àdduna dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko ajal yàlla yërëm ko Euh, defe naa ne li ñu ko war a defal acteur bi mu nouvelle bi daanoo léegi mooy une minute de silence. Mhm. avant match bi di démarrer. mooy final donc tey c'est l'Afrique qui rend hommage à un homme nit ku bëgg ku bëggoon football te mënoon ko. Mhm. li ñu def rek mooy ñu ñaan sénégalais yi ñu ñu ñaanal ko te ñu am ci njàngat. loo gis day jeex. Mhm. Eh, bu ñu dara jaralati ñuy xëccoo wala ñuy waxante yenn yi te xam ne bés ku nekk bésam lay xaar. wax nga dëgg. Eh, di la gërëm nag doyen Abdoulaye parce que maa ngi lay déglu bu ma jógee dakaar ba fii nga nekk di fàttali. Eh, di jox xel yoo xamante ne defe naa ne jëriñ na ndaw ñi di ñu jëriñ ñun ñi nga xamante yàlla def na tey président Macky Sall wóolu ñu ñu jiite wàllu tàggat yaram. jërëjëf Ba. Mm,